aboneel bul fàtte bés notification bi ngir ngay am suñu vidéo dama fi guni maa xeex xeex bu bëgg a dee kon laa gën laa gën mu jaar sama taaku di ko teg waaye émir gi mu xaw a mu bëgg a am sens la amul sens lay lay bay leen seen yaa ba ji tela bay leen seen yaa ba ji tela ba dina way lay lay la la bay leen seen yaa ba ji tela lay lay la lay lay la mu ji ba Jërëjëf jërëjëf jërëjëf flagrant délit jërëjëf jërëjëf yow jëlal yii moom amul dara flagrant délit oh. waay nijaay waay man tey man man mu nit di jëf yàlla ngay bëgg wax waxal la ñu wax man a aw man a musinooy man a man a munaas nga wax man bi naasam tudde ñu wax la demal boo ko defee yàlla mu nga xam ne yow bind nga xam nga loolu lu tax ñu créé waaw xam nga tax ñu keneen. waaw maanaam ñi war ñi bind bi man bindu ma de. abonneel bi ngir ngay am suñu vidéo.